tay so ne woon benn brique laa si soxla soko lalé moy ànd ak yow dem kon daf dañu wara a rattaxal digënté ba mu melni tabax non la ko yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam waxe al muminu lil mumin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da julit ak moroomam dafa melni tabax motax yàlla wax ci hadithul qudsi wajabat mahabbati lil mutaxaabina fi llah والمتجالسين في الله والمتظاهرين في الله ثم تسال من لا تجكلل نينا خمنا دانيو سوبانت بغنت دي ديمبلنت غير يالله دي ام اي جتا يو خمي لا انت بير لو ديمبلنت لا دي زيارنت يالله يالله رك تخ لنن جوبلو كوس كوم سونو خيت بي كم نيكو سنو راك دي واخا دفن كنتم خير امه اخرجت للناس kon gannaaw juróom-ñaari xeet yi yàlla sàkk dafa ne xeetu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo féete kaw xeet yi fi jot a jaar kon dañu war a mel ni benn jëmm ndax jëmm bi benn cër su tawatee yeneen cër yépp ànd ak moom ci solidarité boobu moo tax yonent bi nee na jullit ak moroomam mooy dañu war a wane seen cofeel seen bëggante ba mu mel ni benn jëmm su benn cër méttee tey exemple nga amoon bëñ buy mett wala nga amee panaris si loxo wala nga amee panaris si tànk tey soo ko amee woon da ngay gis cër yépp ay ànd ak moom guddi ki di veye di ànd ak moom naqar boobu ak mettit boobu kon sa mbokk jullit su tollee ci diggante am naqar am mettit épaulé ko jaxasoog moom waaye bul ko dëdd waaye jamono bi da ànd ak nit nga nga jékki-jékki jekk di jekk soo jekkoo nga wan ko gannaaw wala iyaz billah yàlla di wax ci alquran innama almuminuuna ixwa fa aslixu bayna axawaykum wattaqu llaha laallakum turhamun mu ne julli ji ñooy ay mbokk kon dañu war a rafetal rattaxal yéewanal diggante gi waaye wax ñu nga yem ci loolu rek waaye da nga ko war a ànd ak ragal yàlla ngir yërmande borom bi mën a tàbb ci yow ndax yërmande borom bi su tàbbee tàbbee ci yow da bokk ci allazina laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun mooy ñi nga xam ni du ñu am lu ñuy tiit du ñu am lu ñuy ragal ndax yàlla rek la yaakaar yàlla rek la sukkandiku ci noonu la ñuy doxee su loolu la ñuy waxee muy lan muy benn bonheur spirituel nga ànd xel bu dal ak jëflanteeg sa moroomu doomu aadama ci doo ci xaar lenn borom bi delluwaat di waxaat ba tey ndax keroog ndax soo xoolee lu jiitu lislaam nit ñi nekkoon nañu di noonoo mu ne waskuru nicmatallahi alaykum iz kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwaana mu ne fàttaliku leen xéewal jëmaleen defar ndax demoon ngeen di noonoo waaye yàlla ñëw boole tàppe xol yi bar ngeen bi ci lu yàlla boobu di ay mbokk yonente bi bi mu jugee màkk ñëw jàddaay ñëw Medine dafa fekk ñaari famille ñaari famille yoo xam ne dañu dëddoo woon ñaari famille yoo xam ne lu jiitu ñeent fukki at kenn ku si nekk soo gisee sa morom dañ koy faat muy Aws ak Xasraj dem nañu ba seen doom yi suñu juddoo suñu demee ba dëgër da ngay gis koo xam ne day jël jaaseem xool beneen famille bi ngir fat jamono yooyu kilifa yi def nañu ay intervention waaye musul ant waaye bi yonent bi ñëwee taaxa baynahum daf lañ dajale def benn concertation ba mu jur fraternité kon loolu dafa nekk ci mbaaxu yàlla ndax tey di nga gis ñaar ñu dëddoo jubóowuñu nga siy dox ay jéego ba mu sot nga fëgg sa dënn na ah man de lii suñu woon man du sotti waaye loolu dafa fekk yàllaa si tàbbal loxoom kon soo siy dox mu téew a sotti tàllalal sa loxo borom bi ñaan moo tax wa ma tashaaun illa an yasha allahu lu am rek dafa fekk mu soob borom bi subhanahu wa taala nga xool tamit xaswatu badr jullit yi nekkoon nañu lu toll ni trois cent treize yéefar yi doon mille soldats ñuy jànkoonte jullit ji waaye yàlla dafa defal ndam jullit ji ndax malaaka dañ ci tàbbal seen loxo waaye yàlla xamal yonent bi wa ma ramayta is ramayta walakin allaha rama yow yonent bi bi nga sànnee jamuloo waaye man yàlla maa jam kon lu am rek dafa sob yàlla subhanahu wa taala bokk na si cofeel boobu nga xam ne moo war diggante jullit ak moroomam keroog muhaajiruun muy waa màkka bi ñu jugee màkka ñëw medin fekk waa ansaar ñu bàyyi seen koom seen richesse yépp kër yi lépp lu ñu amoon ci alal l'islam tax ñu teg seen tànk ngir topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi ñu ñëwee medine waa ansaar dañu ubbi seen kër yi tabbal fa seen xarit tabbal fa seen mbokk julli ji ci amoon ñaar jël na beneen kër jox moroomam ku amoon ñenn ci say soxna jël nga mu jaxasoog beneen njaboot njaboot gi kon loolu yëpp daf lay wan lislaam dañu war di dimbalante dañu war di jàppalante waruñu dëddoo waruñu di noonoo yàlla ñëw ne wa allaf bayna qulubin yàlla ñëw tàppe xol yi waaye mu xamal yonent bi law anfarta ma fi l ardi jamian ma allafta bayna qulubihim walakin allaha allafa baynahum innahu azizun hakim mu ne yow yonent bi soo jëloon mboolem koom mboolem richesse yi nekk ci kaw suuf ngir nga tàppe wala nga boole xol yi ngir mu bennoo man yàlla rek maay ki nga xam ne maay aji xareñ maay aji tëdd man maa ko mën a sottal kon mbokk julli ñi amul benn yoon ci yoon yi muy dolleeku ci xeet bi ak muy jegeñal lenn walis lenn lu dul l'islam orienté lu dul l'islam ak charia orienté la ci loo xam ne lu war la wala lu ñu sopp kon l'islam digal nañu mbaax l'islam digal nañu jokk ñuy jokk mbokk ndax mbokk alalu yàlla la lislaam digal nañu ñuy wesaare jàmm ndax lislaam diinay jàmm la du diinay noonoo du diinay parparloo du diinay man fii laa bokk li ma nekk moo gën la la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax àq bi nga xam ne moo war diggante jullit ak moroomam mu ne juróom la mu ne juróom yooyu bi si jiitu lan la mu ne rabdu salaam muy delloo nuyoo ndax yàlla yonente bi daf ñu jàngal soo gisee sa mbokk ne ko assalaamu aleykum yàlla na jàmm nekk ci yow nga delloo nga delloo ko nuyoo ne ko wa aleykum salaam kon jàmm googu nañ koy wesaare nañuy wuyu nuyoo mu ne ñaareel bi wa iyaadatul marid dee seet ku feebar koo xam ni yéen a bokk sa dëkkandoor la wala nga bokk ak moom gox bi wala ngeen daje fii bërëbu jaamukaay yàlla yi nga toog semaine gisuloo demal jéem a toppatoo téléphone am wala nga dem nemmee ko xool nu mu toogee waaye da ngay gis koo xam ni dangeen nekk si jàkka ji mu toog wéerum lëmb gisu la ngeen dajewaat du la laaj sax ci naka nga toogee woon loolu nañ lañ si bàyyi xel mu ne ñetteel bi wa itbaaul janaiz mu ne nañuy gunge néew soo déggee diw faatu na nga xam ko ngeen bokk gox bokkoo leen gox solal sa dàll bul ànd ak tayal ndax kenn ku nekk da nga bëgg sooy génn àdduna ñu taxawu la defar la gunge la ndax li nga lebre rek moom lañ lay fay kon soo déggee am ku faat kon ñëwal bokk ak ñoom naqar bi ñëwal bokk ak ñoom nga julleeg ñoom soo ko mënee tamit ñu gungi ko ba ñu denc ko ngir loolu tamit ñu mën la ko defal mu ne ñeenteel bi wa ijaabatu daawa suñ la woowee ci diine suñ la woowee ci pas-pas suñ la woowee su lay dolli si wàllum diine wala luy développer sa wàllum koom-koom mu ne luñ la woo lépp day fekk na nekk lu lalu ci siraatal mustaqim waaye suñ la woowoo lu safaano loo xam ne caaxaan la foo la mu ne bul si wuyu mu ne juróomeel bi wa tashmiitul sa mbokk su tit soolee na ko ndokkeel waaye da gis nit tit soolee amna complexe wax alhamdullilah wa amna complexe wax ko ci kaw da fay nek ci birom waye amna kerta ne alhamdullilah yow mi tamit di nga am kerta ngir delo ko yalna la yàlla yërëm te ak bi dafa war diggante jullit ak morom kenn ku su nek war na ko sam gor